asalaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jàmm ci Sen Sport 221 Coupe d'Afrique des Nations bi ñuy amal ca Côte d'Ivoire yegg nañu ca cappaandaw ga mel nañu gis ne fi mu ne nii kat final bi taxaw na mu ngi war a dox diggante Côte d'Ivoire ak Nigéria ñaari équipe lañu yoo xamante ne ku nekk ci ñoom tey jii la dal di jot tikem Nigéria moo njëkk a taxaw ci final bi gannaaw bi mu dóoree Afrique du Sud ci ngoon si waaye ñi di waa Côte d'Ivoire dal di dóor ñi di waa RD Congo ci marax gi loolu moo leen may ñu taxaw ci final bi dimanche bi nag ci la ñu li nga xamante ne mooy final boobule ñaari équipe yu am taxawaay yu am tur fii ci Afrique ñoo xam leen ci wàllum football voilà waaye nag ñu gis ne ñi nga ñoo di waa Côte d'Ivoire match bi nga xamante ne gagné ko tey jëlee daf leen di yóbbu ñu joué ci li nga xamante mooy seen cinquième final kon lu toll ci juróomi final ñi di waa Côte d'Ivoire dinañ ci taxaw ngir daal di ko ci li nga xamante mooy wàllum kan bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar yi bit bi nga xam moo leen jàllale ba ñu daal di taxaw ci final bi kii di Sébastien Haller moo ko daal di marqué moom mi nga xam ne moom li nga xam ne mooy xar kanam ba mu njëkk a wane ci phase de poule ak bi mu wane waat ci phase élimination directe yi dafa wuute lool. ndax tey jii bu ñu taxawee ci final war nañu ñaanal Maroc war nañ koo gërëmee ñi di waa Maroc ndax ñoo leen sauvé dugalaat leen ci compétition bi gannaaw bi nga xamee ne daanaka éliminé woon nañu leen. wala ñu gis ne kon jamono bi ñoom ba ñu rëccee ci loolu ba léegi daal beneen taxawaay la ñu am match bu ñuy joué rek boo gisee taxawaay bi ñuy am da ngay gis ne dëgg-dëgg ñi équipe bi ñu jënool dafay mel ni ñoom ñoo ko gën a bëgg li nga xam ne mooy ndam li voilà daj de attaqué lépp loo xamante jongante yi da koy laaj daf koy def donte ne sax gis nañu ne am na fi match boo xamante ne jàppoon nañu ne keroog la leen yàlla doon xaare mooy seen diggante ak Mali ndax premier mi-temps bi jeexul sax ñu am carton rouge waaye teg nañ ci seen bakkan ba daal di koy gagné loolu nag la ñu wéyal ba bisu tey bi lay mën nañoo gis ne ñoom waa Côte d'Ivoire match bu ñu joué dañuy joué mérité dañuy gagné maanaam du ñu forcé ndam mais dañu koy mérité voilà loolu moo leen indi fii tey équipe lañu boo xam ne ca ndorteel ga métti woon na waaye fi ñu mujjee neex na lool kon ñoo dal di ci final bi comme ni ma demee un partout ndax ñaari équipe bi ku nekk ci ñoom penalty la dal dugal voilà ñii di waa Nigéria sax marqué woon nañu ñaareelu but boo xam ne jàppoon nañu ne moo leen di jox seen ticket waaye nag ñu gis ne ki nga xamante mooy euh, Victor bege wala dañ ko wowat nako sa bit bi nga dugal kat baxu ndax dafa am foot bu ko jitu te foot ba nak penalty la manam ñom dañoo joge ci mbekté ba nopi daanu ci nakar wala ndax li nga xamanteni kat moy foot ba ñu am contre ñom mo ngi xew ci bir surface bi ci non nak lañu jox ñit wa Afrique du Sud penalty boobule ñu dal di dabé li nak mo leen yobbu ci li nga xamanteni moy prolongation ñu dem ci li nga xamne moy tiro bi di way nigeria dal di jall gëna bi mu marqué ñent euh, Afrique du Sud dal di marqué li nga xamanteni moy ñaari bal seen gardien bi kon taxwa bi mu amoon keroog contre Cap Vert dafa melni yefi de courier lii mooy jàllale kon ñi nga xamante ne waa Nigéria kon match lay doon boo xamante ni ma leen ko waxee ñaari équipe yu am taxawaay lañu waaye ñaari équipe yu miin tiro bit ndax bu ñu xoolee équipe yi ëpp lu ñu taxaw ci li nga xamante ni maanaam équipe yi ëpp lu ñu gagné ay match ci tiro bit Nigéria bokk nañ ci Côte d'Ivoire bokk na ci bu ñu xoolee Égypte gagné na match ci li nga mooy ay tiro lu toll ci juróom-benn yoon Nigéria mu met gagné na ay match ci tiro lu toll ci juróom-benn yoon ñir waa Cameroun daal di koy def juróomi yoon Côte d'Ivoire naka noonu moom itam daal dina koy def cinq fois voilà maanaam jeu match ba ci tiro nga daal di koy gagné kon ñoom am nañu chance gagné ay match ci ay tiro kon final ba bu fa mujjee it bu mu kenn ndax ñaari équipe yi nañu ko beneen mbir bi mooy comme ni ma koy waxee équipe lañ ñu am taarix fii ci Afrique yàgg nañu gañe ay kan Nigéria nag xañ na xaw na ko gëj a gañe ci atum 2013 la ko gañe woon contre Burkina waaye ñu gis ne Côte d'Ivoire moom itam ci atum 2015 la mujjoon gañe li nga xamante mooy CAN te ca compétition boobu la sax di moom moo éliminé woon RD Congo bii nga xam ne moom la éliminé tey moom la dooroon dem ca final ba tey ji lu ni mel la répété rek Côte d'Ivoire na ca gannaaw loolu ki nga xamante ne mooy Nicolas Jackson moom tey ji dal dinay marqué li nga xam ne mooy son neuvième but de la saison ndax kat tey ji ci match boo xam ne Chelsea football club doon nañu ko am voilà ci wàllum FA Cup la ñoom ñoo am ndam seen digganteeg Aston Villa ñetti bal ci benn ki nga xamante ne mooy Conor Gallagher mooy njëkk a marqué ci jogante gi ci onzième minute Nicolas Jackson daal di koy ñaareel ci vingt Enzo Fernandez marqué li nga xamante mooy benn free kick maanaam coup direct la daal di dugal voilà Moussa Diaby nag moo dugal benn bit bi nga xam ne Aston Villa daal nañu koy am kon Chelsea moo daal di dóor Aston Villa Nicolas Jackson daal di ci marqué li nga xamante mooy juróom-ñeenteeli balam ci digganteeg Bristol City la woon ndax kat match boobule dañoo mujjee sax ci li nga xamante mooy tiro bi di Cheikhou Kouyaté titulaire la woon ci milieu bi Moussa Niakhaté titulaire la woon ci défense bi Cheikhou Kouyaté moom mujjee nañ ko remplacer mais Moussa moom dafa joué match yi ba mu jeex takk dóor na sax penalty xam naa ñu bari dinañu ne voilà moom nag am na fit lool ndax keroog dafa arrêté woon penalty te yàggul dara tey jël na penalty dal di koy marqué ki nga xam ne nag mooy Ousseynou Diawo moom tey ji dafa marqué ne nañu son premier but ak équipe bi di Real Betis waaye nag équipe réserve la ndax ka jéegut ak équipe première tey ji la amal débutam ak équipe réserve bu ñi di waa Real Betis bi nga xamante ne foofu la seexandooram bi di Assane Diawo di footballé moom dafay joué ci équipe première waaye moom Ousseynou bi nga xamante ne fan yii lañ ko dal di signé marqué na son premier but ak équipe boobule bu ñu sukkante ko tey ci taskatu xibaar yi suñu gaynde beach soccer yi ñoom tey ji dañoo dal di daanu ci match amical bi nga xam ne amoon nañu ko seen digganteeg Italie match préparation la nag mu nekk lu am solo gannaaw bi nga xamee ne kat fi mu nii ñu ngi waajal compétition bi nga xam ne ñu ngi ko war a amal foofu la ca Dubaï muy li di coupe du monde beach soccer way nak match amical bi ñu am tay ji seen digënté ak ñetti bal ci ñaar lañu leen dal di door, way nak loolu amna solo match préparation mo buñ la ci dóoree da ngay defarwaat rek loolu mo gën dem ba dugg ci conversion bi commencé gis di nga am li nga xamanteni moy ay rek rek tay ji dal ndam loolu nga xamanteni Italie ko ci kaw Sénégal dina leen may ñu gëna xolaat seen dal di jubbantiwaat taxway bi bala ñu yegg ci compétition boobule ki nga xam nak mom lañuy wax Seydina gadjega ak Mamour Diagne ño marqué ñaari but yi nga Sénégal ko ci jogante gogulé Real Madrid seen défenseur bi nga xamante ne moom la wax Nacho Fernandes na nañu wóorul mu bougé ci match bi nga xam ne war nañu ko am seen digganteeg Girona bi nga xam ne jamono bii daf leen sës rëkk ba di leen rëkk di bokk xëccoog ñoom li nga xamante ne mooy bopp classement bi voilà jamono bi ñi di waa Real Madrid amuñu benn défenseur central amatuñu ko même seen équipe réserve ba sax ña fa nekkoon nga xamante ne daan nañ leen woo léeg-léeg di leen dugal ne seen match bii di ñëw bu fekkente ne maanaam Nacho wérul ci benn arrière central fa am nga xamante ni moom la ñuy mujjee mooy daal di modifier rek jël ay milieu de terrain wala ay euh, dégg nga maam leen teg foofu la ñuy jouer loolu la ñuy gën a séntu ci match boo xamante ni nag bu am solo ci ñoom ndax Girona boobule mën na leen xeeñ li nga xamante ne mooy La Liga bi ndax yàgg na leen topp sës leen rëkk te nag bu ñu amee chance ba dal di gagné match ñoom waa Real Madrid mën nañu amaat jafe-jafe ngir dab leen ndax Girona équipe bu loo xamante ne daal dinay fes lool ci kayitu